rafasé wala ñom duñu ñëwaat sama kër sama jabar néna na rafasé wala sama dom dañuy xaru seen copine yi di leen yónnee sama vidéo ñi def ay crise cardiaque dama ray nit wala damay dem wala damay noxo wala yeen da ngeen na bëggoon man bu ñëwé ma iri ko def ak mom lu bon bay ko mu ñëwaat ci yeen ak sobé bobu duma ko def ma fi ma julli fajar xam na bu baax may kan bis bu may fase ci lu leer la may fase mais pas seen ay caprice seen réewande yi da ngeen koy arrêté abal looloo tax ma ma publier yi génn TikTok naruma woon publier dangay def euh, euh, def ko silencieux li tax ma publier TikTok vidéo yi c'est parce que yéen a jël ay vidéo di ko gëmloo ne ko TikTok bi yëpp a ngi koy partagé ngoone publier na boobu publier ma toog naa 10 jours dégguma dara yi musul xam ni damaa am réseaux sociaux bu influent wala su ma taalee dañ may seetaan parce que géewuñu loolu ma ak moom du am jaara bu so la géem ak moom comprendre nga samay copine ñoo ma xam ñu la xam ñu ne bu la dina tas parce que aaw bi nee bu ma tasee nga tas bu ma tasee di nga yenu say dàll non di daw ngay jëm dal no di daw mali sax ngay jëm pour lan kan bis bu may tas di ngeen ñëw taxaw parce que photo yi génn di ngeen ñëw taxaw wax photo yooyu fan la jóge tasuma tey nag tasuma suba tasuma gannaaw suba fasewuma ya. pour votre information fasewuma

yéen topp ngeen nit ba doomam dee biiram tuuru ay seexam dee muy jooy noppeegul gisul góor gi ndax yéenañ koy stressé ndax yéenañ koy manipuler ñemewul jël samay appel ay message lañ may tontu ah yéen ngeen ne da ngeen di nekk noonu barke naa Mohamed doo leen am jaar duma leen bàyyi yéen duma leen may dara yéen di ngeen am ay vidéo ba doyal ci man confidence laa jëm ak confrontation xoolal ak Seneweb dinaa leen yóbbu ci télé yëpp ba naar ji